radiallahu taala an ashaabi rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ya himmat cheikhi wahduri lana bi hada almahdari waltaatifi bi nadratin taati lana bi zafari ñu ñëw ci suñu darsu nasiha inchaa allah ñu ngi ñëw ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ak Cheikh Tidiane maanaam Cheikh Tidiane waxam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wala Cheikh Tidiane wax na ne xaala lii wax na ma dégg nga sallallahu alayhi wa bi wax na ma ne ma dégg nga masalatun lii ab laaj la boo xam ne dégg nga wala question la boo xam ne axfalaha dégg nga dina ko saggane a suyuuxu sëriñ si lii daal question la boo xam ne sëriñ su bari dañ koy saggane dégg nga wala dañ koy fàtte fàttelu waxiyate question bi mooy anna kulla man an cheikhin képp ku jël dégg nga ci benn sëriñ nga jël ci moom wird masalan waaw képp ku jëlee ci benn sëriñ wird wird tijaan wird tarab askaru tarbiya dégg nga wala lu mel noonu wa zaara xayrahu nga dem ziyaar ji beneen wali yu budut moom maanaam beneen wali budut moom xam nga tarixa tijaane dafa wax ne bul ziyaar ji benn wali yàlla budut tijaan ngay sàkku ci moom ngërmande yàlla dégg Cheikh Tidiane mu nekk eh, eh, eh, anna kula man axada an cheikhin képp jël ci benn sëriñ wa zaara xayrahu nga dem ziyaara ji keneen ku moom danga nga minal awliyaa i ci wali yàlla yi laa yantafiu kooku du jëriñu bil awwali ci sëriñ bi mu njëkk jël wala bi saani du ñaareelu sëriñ bi mu mujj jël itam doo ci jëriñu doo jëriñu ci ñaar doo jëriñu ci sëriñ bu njëkk bi waaye doo jëriñu itam ci sëriñu ñaareel bi loolu nañ ci bàyyi xel Seydi Ahmad Sukayrij wax na ci benn téeram buñ tuddee yawaaqitul maani fi mazhabi cheikh Tijaani mu teg ci moom cheikh Tijaani mu ne wa ribxu laa yakunu lil muridi fi cheyin ida bi cheikhihi lam yaktafi <coughs> Ahmad Sukayrij mu ne wa ribxu bénéfice maanaam nga tonowu nga am bénéfice laa yakunu du mën a nekk lil muridi ñeel taalibi bi fii shay'in ci dara ida bi cheikhihi lam yaktafi lu dut ne sa sëriñ daf laa doy Seydi Ahmad Sukayrij mu ne taalibi bi du am bénéfice mukk lu dut dafa doyloo sëriñam taalibi yow faw nga doyloo sa sëriñ waaw ci ngay door a tonaw ci la ngay doon amee bénéfice dégg nga mu ne wal yaalam al muridu anna nafaa min cheikhihi yati ilayhi qataan mu ne wala yaalam al muridu taalibe bi na xam ne ana nafaa naka njëriñ min cheikh yi ci sëriñam lay jóge ko min cheikh yi yaati ci sëriñam lay jóge ko ilayhi jëm si ci moom qataan ci lu daggu lu nekk waaw loolu mooy li ne waaw mooy li bi dogal mu ne njëriñ mënta jóge ci kenn ku dul ci sa sëriñ jëm si ci yow ci sa sëriñ rek la mën a jóge ko ñu bàyyi ci xel mu ne in kaana fiihi daaima itiqaadin wa muridan an kulli di intiqaadin Seydi Ahmad Sukar ji mu ne waaye su fekkee ne nekk na ci taa ci sëriñ bi nag daa iman mu am pas-pas ci sëriñ bi maanaam taalib bi su fekkee ne mu ngi ci sëriñ bi am pas-pas bu dëgër daa iman waaw waaye mu won ginnaaw ñi nga xamante ni itam dañuy échanger rek waaw dañuy échanger maanaam saxuñ benn place dañuy dem rek maanaam gëmuñ dara nit ki da ngay sax ci dara da ngay gëm dara nga sax ci moo tax mu ne wa mu'ridan nga moytandi ko woon ginnaaw an ku din tiqaadin ci képp koo xamante ne yaa ngi dégg dafay changer rek day changer di changer di dem rek waaw wa kaana yanzur bi ayuna rida li amri cheikhi bi taslimil qada fekk mu ngi xool dégg nga ci bëtu ngërmande mbiru sëriñam mi nga xamante ne moom la jébbal léppam waaw na nga ànd ak sëriñ bi dégg nga nga xool ci moom bëtu ngërmande liggéeyal ko ngir am ci moom ngërmande yaa ngi dégg sa mbiru sëriñ bi yëpp nga gërëm lépp lum lépp lum def nga gërëm yaa ngi dégg nga jébbalu itam yaa ngi dégg ci lépp loo xamante ne dogal na ko sa diggante yow nga nangu ko si dama sukkari ju mu ne wa zaaka loolu le manhajul muridi sadiq loolu mooy yoonu taalibe bu dëggu taalibe bu dëggu da ngay xoolee sa sëriñ bëtu ngërmande maanaam mu gërëm la ba noppi lépp lu mu dogal ci yow itam nga gërëm ko nga nangu ko lépp lu sëriñ bi dogal ci nga nangu ko waaw mu ne loolu mooy yoonu muritu saadiq taalibi bu dëggu li nay li fatihi bil bil yaa ngi dégg ngir yàlla ngir mu jot lu koy ubbi maanaam lu koy dindi ci ci ci euh, ndog ndog yi waaw lu koy génne ci ndog ndog yi mooy na topp yoonu sëriñam mu dëggu ci waaw ah, mu ne li daaka man an nahji cheikhin yaltafit mu ne loolu moo tax képp koo xam ne nekk nga ci sa yoonu sëriñ ngay gestoo képp ku nekk sa yoonu sëriñ ngay gestoo ilaa siwaahu ci keneen kudut moom fil barriyati maanaa ci àddina bii ngay nga nekk ci sa yoonu sëriñ nga ànd ak sa sëriñ ngay gestu keneen kudut moom yow moom muqit waaw doo doo jëriñu foofu ngay sax daayiman waaw doo jëriñu mukk hmm. falantifaa adeet njëriñ indahu ñeel ko kooku du am benn njëriñ bil awali du sëriñ bu njëkk bi wala bi saa wala bi saani du sëriñ bu ñaareel bi la daa kullu waliyin an bépp wali bu dem sax du jëriñu waaw parce que wali yàlla yi boo nekkee ci ñoom da ngay mën nga jox leen sa bopp jeex ci waaw loolu nag gàllankoor la ñu bëri parce que ñu bëri dañuy ànd ak wali yàlla te fekk joxuñ ko seen xol loolu nag dafa lay gàllankooral doo dem fen sa mëdë du dem dem fenn kii loolu nga bàyyi ci xel parce que ñu ci gën a bëri dégg yi ñuy dégg la rek diw mii diw mee diw nangama nangam lim yor diw fi mu toll diw nangama nangam rek xol bi jeng dem ci diw moomu fekk yàqu nga moo tax mu ne falantifaa ah, déet njëriñ dégg nga indahu nekk ci moom bil awwali ci sëriñ bu njëkk bi wala bi saani du naka noonu itam sëriñu ñaareel bi la daa kull wali facc bépp sëriñ nag bépp wali rek boo fa demee doo jëriñu li daaka cheikhuna tijaani qad manaa mu ne loolu moo tax suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tijaani mu tere min a ziyaarati alladi lahu tabaa yaa ngi dégg ci nga dem ziyaara ji yaa ngi dégg mboolem maanaam keneen ku dul wali yàlla am toppam maanaam topp Cheikh Tijaani buñ ziyaara ji keneen ku dul wali yàlla keneen ku dul waliyu Tijaan kon keneen ku dul waliyu Tijaan waaw loolu moo tax Cheikh Tijaani tere ne bu leen ziyaara ji beneen waliyu bu dul bu dul bu dul lool loolu nañ ci bàyyi xel yonent nag sallallahu alayhi wa wax na ne fii aalami ruuxihi ci aalamu ruuxam kan la ko wax lii aalami seydina cheikh radiallahu anhu ci aalamu seydina cheikh radiallahu anhu la waxal mu ne masalatun axfalaha suyuuxu maanaam lii question la boo xam ne sëriñ si dañ koy sàggane wa hiya anna kulla man axada an cheikhin te loolu mooy képp koo xam ne jëlee nga ci sëriñ wa zaara xayruhu nga dem ziyaara ji keneen kudut moom minal awliyaa ci ci wali yàlla yi laa yantafiu du jëriñu bil awali du ci wali bu njëkk bi walaa bi saani du wali yu ñaareel bi itam wa hada chartu mu ne charte bii wa ruknul azami fi tariqati bokk na ci ponk yi gën a mag ci tariqa tijaaniya mooy boo jëlee tariqa tijaaniya doo ziyaara ji beneen wali yàlla bu dul tijaan ngay sàkku ci moom ngërmande yàlla boo ko defee yow doo jariñu ci sëriñ ba nga jëm te doo jariñu ci sëriñ ba nga jóge wa wa kadalika naka noonu la itam mashrutun fi tariqatil kamali mu ne naka noonu itam loolu lañ ko sartaale ci yoonu mat gi yoon bu mat bi itam dégg nga loolu ci bàyyi xel benn anecdote mus na ci am dégg nga ci benn muqaddamatu mawlana Cheikh Cheikh Tidiane radiallahu anhu mooy eh, eh, eh, lalla Fatima dégg nga radiallahu anha lalla Fatima dafa mos a fekk mawlana Cheikh Tidiane toog ak lenn ci saxaabaam mi ñoom Seydina Ali Harazim ak ñu mel ni ñoom ñu def seeni xayma toog booba ku ñëw balaa nga agsi ci Cheikh Tidiane fi xayma bi Cheikh jaan nekk dégg nga da ngay da ngay ziyaara ñoom Seydina Ali Harazim ak Seydi Mouhamad Boun Abi Nasr ak ñooñu nga ziyaara leen door dem ci say Cheikh Tidiane waaye moom dafa romb ñoom Seydi Ali Harazim ak ñoom Seydi Mouhamad eh, Boun Abi Nasr ak ñoom ñëpp mu romb leen dem direct ci Cheikh Tidiane moom lan la Fatima ziyaara ko Cheikh Tidiane ko xanaa gisoo ñi nekk ci kanam ñi sa buntu xanaa romb boo fa kii mu ne ah kay man du ñoom laa soxla man yow laa soxla aw ma ci ñoom soxla man yow laa soxla waaw ah, Cheikh Tidiane nag yaa wax nañ ne bisu keroog la doon wax ne yaa ngi dégg man arafa ni yaarifu ni ana wax di wala man yaarifu ni yaarifu ni ana wax di man ku ma xam man kese ngay xam doo xam keneen radiallahu anhu kooku bokk na ci ñi Cheikh Tidiane njëkk a ijaazal tant que jigéen mooy lan la Fatima waaw moo tax mu ne kadaaka mashrutun naka noonu itam lañ ko sartaale fi tariqil kamaal ci yoonu mat yaa ngi dégg loolu ñu bàyyi ci xel ah, kon wa innama kanat hadihi tariqatu saraxat kulla saraxin bil mani min aziyarati xeyri cheikhi mu ne wa wa innama kanat naka nanu nekk na hadihi tariqa mooy tariqa bi saraxat leeral na kulla suraxin bépp leeral bil man ci tere min ziyarati xeyri cheikhi nga ziyaara ji keneen beneen sëriñ bu dul waaw li annaha tariqu safaa yi yaa ngi dégg parce que loolu mooy yoonu sell tariqa bi moom mooy tariqaay sell tariqatu tijaaniya mooy tariqaay sell waaw kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax moo tax mu ne euh, Cheikh Tidiane yi dafa tere woon ziyaar ji beneen wali yàlla bu dul bu dul bu dul Tidiane ci tariqa bi parce que tariqa bi tariqa bu sell la dégg nga la tadrisa fiha amul len luñ ci nëbbu ci ay ay ayiba yaa ngi dégg li annaha dégg nga mubramatun ala yeddin parce que lu diis la ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alladi rabbaahu laahu bi qawlihi yonent boobu nga xam ne yàlla moo ko yar ci waxam fas daa bi ma tuumar jógal nga def lañ la digal yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayk yow yonentab yàlla bi jottalil la la yàlla yónni moo tax wax ji itam bu ko yërëm lu metti metti metti metti metti metti na ko wax waaw bu ko yërëm na ko wax parce que yaa ayyuha rasulu balligh maa unzila ilayka yow yonentam yàlla bi jottalil lañ wàccee ci yow mu ne wa amma tariqul awliya tariqatul awliya mu ne amma yoonu wali yàlla yi radiyallahu anhum fa innahum yanzuruuna bi nuurillahi mu ne ñoom ci leeru yàlla bi la ñuy xool mu ne li anna fuqaraahum ndax seen woy ñàkk yi ala qismay ne dañ leen di xaaj ci ñaari xaaj maanaam seen taalibe yi dañ leen di xaaj ci ñaari xaaj fuqara u tabarruk am na ay taalibe danga xamante ne dañuy tabarruk waaw tabarruk mooy koo xamante ne dafay ñëw di la liggéeyal di la xitmaal di la guddim ak bëccëgam yooyu noonu ak lan wa fuqaraul istimdaad ak taalibe yoo xamante ne dañoo ñëw pour def istimdaad mooy tarbiya ruux yi ñu am mëdët ci yow yaa ngi dégg ñaari taalibe yooyu ñoo am mu ne fa man raaw min ahlil istimdaad dégg nga képp koo xam ne nag gis nañ ko kii taalibi daat la dafa ñëw ci yow tarbiya pour jot yàlla jot madadu yàlla yi jóge ko ci pee yàlla bi wàcc ci wali yàlla bi loolu moo ko fa indi mu ne kooku manauhu min ziyaarati xayrihim kooku dañ koy tere mu dem ziyaara ji ci beneen wali bu dul tijaan yaa ngi dégg kon dafa am ñu ko moom ñu ko moom mooy lan koo xamante ne dangaa ñëw ci ron sëriñ bi ngay tarbiya yaa ngi dégg ngir jot yàlla ngir jot leeru yàlla yi ngir jot madadu yàlla yi yaa ngi dégg kooku dañ lay tere bul ziyaare ji beneen wali bu dul bu du tijaan loolu nag njàngaleem bi c'est simple médecin bu fekkee ne yaa ngi fay faju nga bëgg a dajale fukki médecin médecin bu ne nga dem fu mu bindal la ordonnance ordonnance yooyu nga jëndal ko nga ne danga koy fajoo bu yàggee yow da ngay rey sa bopp waaw da ngay rey sa bopp loolu lay jàngale kon waxtu woo ñëwee ci sëriñ bi nga jàpp ko dégg nga yaakaar ci moom mëdët buy jóge ko ci moom ñëw ci yow yaa ngi dégg su boobaa yow bul soxla yaa ngi dégg keneen ku moom dégg nga su fekkee ne doy na la ci pas-pas yaa ngi dégg loolu moo tax mu ne foofu moom manaahu dañ koy tere min ziyaarati xayrihim ci keneen ku dut ñoom wa min al bi bihi yaa ngi dégg te itam ngay jaxasoo ak keneen ku moom dégg nga bul nangu loolu noonu fa in xaalafahum dégg nga fa in xaalafahum soo wuute ak ñoom soo wuute ak sa sëriñ boobu la di la yar pour jëmale ci yàlla xasra dunya wal axira bil muxaalafati yow moom perte nga àddina ak àllaaxira ci wuute bi nga wuute ak sa sëriñ boobu noonu yaa ngi dégg moo tax sufiyanke dañuy wax ne dégg nga man xaala xaalafa cheikhahu laaye summu raihatu sidqi képp ku wuute ak sa sëriñ nga opposé wu sa sëriñ yow maqaama siddiqitu doo ko xeñtu maqaama boobu moom yow doo ko xeñtu xaw ma keneen waaye moom doo bokk ci ñi koy xeñtu yàlla nañ ci yàlla sal moo tax mu ne mu xaalafatu suyuxi summun qaatilun Cheikh Tidiane mu ne di wuute ak sa sëriñ mu ne loolu poson bu rey la moo moytandiku ko leen di wuute ak seeni i sëriñ bëri na nag koo xamante ne eh, mu ngi wuute ak sëriñam te bàyyiwu ci xel dégg nga wuute ak sëriñ dina ñëw ci làmmañ wuute ak sëriñ dina ñëw ci xol wuute ak sëriñ dina ñëw ci làmmañ sëriñ bi wax nga ne ah sëriñ bi nag li wax moom wax dëgg yàlla lii moom dëgg-dëgg man ànduma ci wala nga wuute ak sa sëriñ ci xol sëriñ bi wax ba noppi yow ngay déngi déngi ci waxam te fekk moom mu ngi waxee wilaayatu waaye yow ngay déng-déng ci waxam ci sa xol sa xol bi mu ngay rejeté waxu waxu sëriñ bi loolu summun xaatilun poson buy ree la da lay rey ba nga dee wet dégg nga mu ne wa kullu ma faalahu almuridu yatalaqaahu an cheikhuhu si wal mayri ila gayrihi mu ne wa kullu ma faalahu lépp loo xam ne def na ko al almuridu taalibi bi yatalaqaahu yaa ngi dégg dina ko fekki anhu ci moom cheikhahu sëriñam si wal mayli bam des jeng ila gayrihi jëm ci keneen lépp loo xamante ne taalibi bi def na ko rek dégg nga loolu moom dégg nga dina ko fekk ci sëriñ ba ba mu des nag jeng yaa ngi dégg eh, eh, eh, dem wuti beneen sëriñ bu walla di jaxasoo beneen sëriñ bu dul sa sëriñ dégg nga loolu moom loolu moom doxut mu ne fa huwa min zunubi suyuuxi la tuxfar mu ne loolu dafa bokk ci bakkaaru sëriñ si yoo xam ne duñ ko jéggal kenn yaa ngi dégg duñ ko jéggal kenn moo tax mu ne wa indraahu min ahli tabarruki dégg nga deet mu fa waa min zunubi shuyuxi la far mu ne képp koo xam ne yaa ngi jéng dem ci beneen sëriñ nga ba fa sa sëriñ mu ne loolu dafa bokk ci bakkaar yi dox sa diggante ak sa sëriñ te loolu duñ ko jéggal kenn laa tuxfar comme ni ki bakkaale ak yàlla ni muy doxee sa diggante ak yàlla te yàlla ne duma ko jéggal kenn noonu itam la nit ki di demee bàyyi sa sëriñ nga dem ci beneen sëriñ dégg nga ngir loo dégg ci moom yaa ngi dégg lii nag liñ ci jublu mooy beneen sëriñ bu du tijaan dañ ci jublu waaw bul ziyaare ji beneen wuli yàlla bu du tijaan loolu lañ ci jublu dégg nga mu ne euh, min zunubi suyuuxi laa tox far mu ne loolu dafa bokk ci bàkkaaru sëriñ si duñ ko jéggal kenn na ci bàyyi xel loolu duñ ko jéggal kenn mu ne wa in raahu min ahli tabarruk amma su fekkee ne gis nga nag moom ci ahlu tabarruk la bokk mooy dafay liggéeyal wali yàlla yi rek ngir barkeelu yetlu buuna lahu ziyaara yaa ngi dégg maanaam muy sàkku ci ñoom ziyaara wala ijtimaa bi xayrihim ak dajeeg ci ñeneen ñu dul ñoom fa innahum naasixu al ummati fala yaxillu lahum an yamnauhu mu ne parce que ñoom wali yàlla yi ñoom dañuy laaye biir xeet bi yaa ngi dégg du dagan nga tere ko su fekkee ne dafay dem ci wali yàlla bi rek def tabarruk dégg nga tabarrukan lillah yaa ngi dégg su boobaa nag loolu du dagan yow nga tere ko amoo droit nga tere ko parce que wali yàlla yi ñoom dégg nga dañuy laaye biir xeet bi naasixul ummati dañuy laaya biir xeer bi fala yaxillu lahum du dagan ci ñoom an yamnauhu ñuy tere boobu taalibe parce que kooku du taalibe yi istimdaad dégg nga waaye taalibe yi tabarruk la ñu bàyyi ci xel wa hum aalimuuna bi annahu laa yarbaxu bi maa ma qasadahu indahum mu ne parce que ñoom xam nañ ne moom du bénéficier wu ci la nga xamante moom la jublu ci ñoom su boobaa nag comme tabarruk moo ko indi ah ñu jàppe ko mu tabarruk rek yaa ngi dégg mu def tabarruk ñaanal ko yàlla mu ne wala yaxillu lahum an yusarrixuhu wa hum aalimuuna bi matxi indahu yaa ngi dégg du dagan ci ñoom yaa ngi dégg ñu koy jéem tere di ko jéem a xañ wala yu demee noonu dégg nga parce que ñoom xam nañ lan mooy madadam te madadam mooy dafay barkeelu rek yaa ngi dégg mu ne wa amma fuqaraau haadi tariqati al muhammadiya fa kulluhum fuqaraawul istimdaadi Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne dégg nga na ngeen xam ne nag yaa ngi dégg fuqaraau tariqa tijaaniya bii dégg nga mooy taalibe tijaani yëpp dégg nga fa kulluhum ñoom ñëpp fuqaraul istimdaad dégg nga woy ñàkk lañ woy soxla lañ ci istimdaad maanaam taalibe istimdaad lañ yaa ngi dégg taalibe tabarruk lañ waaye taalibe istimdaad lañ taalibe istimdaad moo jiitu ci ñoom mooy tariqa bi boo ko jàppee doo ko bàyyi ba ba ngay dee lu dul ne di nga àgg ci yàlla loolu moo tax ñoom ñëpp ay taalibe istimdaad lañ wa kulluhum maqsuudun li xamlil asraari cheikhi ñoom ñëpp seen jubluwaay mooy gàddu mbootu Cheikh Tidiane radiallahu anhu kon ay taalibi istimdaad lañ dégg nga ah, ah, ah, radiallahu anhu bihi min ajlina walillahi alhamdu qaala lahu radiallahu anhu lamma suila an fadaili tariqati hal hiya salaatul fati am gayriha fa dakkarahu dégg nga mu ne biñ loolu yëpp ñu ngi ko jëlee ci waxu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu bañ ko laajee ci ngëneelu tariqa bi ndax salaatul fati la wala déet yaa ngi dégg ci la waxoon loolu noonu ci la waxee ne amma fuqaraa wa hadi tariqa muhammadiya fa kulluhum fuqaraawul istimdaadi wa kulluhum maqsuudun li hamli asraarin dégg nga cheikh radiallahu anhu dégg nga min ajlina walillahi alhamdu su ko defee ñu tënk foofu noonu nasiha bi incha allah ba suba allahuma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaaril azim abonnez si notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fa nomee war ngay sant yàlla ñun lañ digil kese loo doom si di baram